شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه jaa ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Assalaamy TV nuy nañ leen di leen wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel wàccaayu màggal ak Touba 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2022 mbokki xibaar yi dañ koy dooree que nemmeeku gi nga xam ne waa Orange sen directeur général bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu amal nañ ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ci wàccaayu màggal gi ngir xool li nga xam ne mooy jumtukaay yi installé ci dëkk bi ndax lépp yemb na mu jëm rek ci yombal jokkoo bi ak internet bi loole lépp nag leeral nañ ne li nga xam ne moom moo di 5G bi di xarala yees yooyu def nañ ko ci li jumaa ji ak yeneen i diwaan yi ba ci li nga xam ne moo di fibre optique bi gën nañ koo yaatal ci fi nga xam ne moom moo di dëkk bi ginnaaw bu ñu gisee ak xalif général des mourides gisee nañ ak Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir bi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu grand magal bu Touba ki nga xam ne moom moo di Abdoulahat Jaxate kenn ci ñi doon coordonné installation yooyu leeral na ko Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre ñu ànd teewlu ko. Touba nag euh, Serigne bu mag bi da koo sàkk euh, fàggul ko lépp la mu yittewoo woon ba tax na lépp lu fi waay def rek euh, maanaam ci ndimbaluk Serigne Touba la ba tax na sonaateel itamit loolu rek cant googu rek moom lay fësal. ba léegi ci liggéey ak naal bi nga xamante ne ci ndigalu directeur général naaloon nañu ko daaw jëm ci màggalu ren gi mooy fibre optique bi dañoo seetlu ne ah clients yi rawatina ah client orange yi nga xamante ne ñu ngi biir Touba dañuy gën a sàkku ah, di am débit bu gën a am solo maanaam jàppandal gi gën a am solo ci li nga xamante ne moom mooy internet bi ñuy jëfandikoo saa su ne ah, ba tax na. directeur général waxoon ci programme bi nañu def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xamante ne màggal gi dañu ko waajale ci wàllu woowu tamit ba tax na fi mu toll nii noppi nañu euh, euh, mel ni daanaka ñetti euh, ñetti ay bés si fi ñu toll programme bi nga xamante ne moom moo doon yaatal fibre optique bi ci biir Touba. waaye comme ni ñu koy waxee rek màggal gi moom lees su def rek bu tollee da koy gën a ful gën ko yokk moo tax bi ñu ko xaymaa mel na ni ni ñuy waajalee màggal gi. bu ñu seetloo li ñu ci yokk par rapport ak la ñu amoon daaw mel na ni dolli nañu si ñaari téeméer yu toftal euh, euh, juróom fukk ak benn ci wàllu capacité maanaam loolu di loo xamante ne dafay euh, fekk si li nga xamante ne moo fi nekkoon. xool réseau bi fan la toll ci wàllu màggaay ndax ñëpp seetlu nañ ne Touba dafa am sancaan yu bëri yoo xamante ne ñëwoon nañu dolleeku ci ci ci ci dëkk bi. bi ñu ko saytoo gis nañu ne ñaari mbir benn bi mooy li ci dëggu dëkk euh, dëkk bi maanaam Touba ci boppam amoon na ay antenne maanaam ay antennes yu bëri yoo xamante ne ni dëkk bi màggee am ay bâtiment def na jeexital ci réseau bi ndax maanaam bâtiment yi dañoo demoon dem ba tolloog antennes yi loolu euh, faw ñu waroon cee ut ay saafara mbokk yi ci loolee la ñuy des ba léegi ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre mi jiite comité d'organisation bu màggal Touba gi sant na bu baax a baax waa Orange jiite ki nga xam ne saa su ne ñu koy def ci màggal gi ngir yombalal ñi nga xam ne ñooy taalibe yi seen jokko loolee sant na leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ñu ànd teewlu kàddoom. am nañ suñu kilifa gu baax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou amoon na bu sori bu xóot. boo xam ne ku ma mas am yitte foofu rek ci moom lay jaar loolu lépp nag xam gëdday dëkk bi ak dayoo moo tax ngeen def ko kon nag bu yàlla defee ñi fi jaar bari na lool ba ak si ceew Cheikhou Dramé yàlla def ngay jiite kër gi bi nga ñëwee ba nagani nag sa gën a jege nit ñi ak gën a jege dëkk bi ak sa jaxasoo ñoom gën naa feesaat bu baax muy taxawaay bu ko boo xam ne mënees koo ñàkk seere ndax bu màggal itam lu fi xew dina da nga ñëwal sa bopp kenn léeg bu dara xewut itam da nga ñëwal sa bopp loo nekk itam ci biir liggéey bi di ci jokkoo ñoom ñu du ko yëg loolu lépp it taxawaay la ak yitte dëkk kilifa yi nga xam ne itam am na ci yoo xam ne réseau bu àggu fa ku ci am jafe-jafe bu ñëwee coon bu ma la ko waxee. boo bu agsee ci rek da ko defe ba defee ku ne ko wasaw jot def ci yitte def ci taxawaay màggal gi itam taxawaay yi ngeen ci def yépp gis nañ ko bu baax ndax Abdou Lahad lii lim na ko lépp keroog sax maa ngi leen di tooñ ca ndaje bañ amoon ci ministère de l'intérieur mooy joxe misaal rek ci dayu màggal gee di mu toll ak dara ji ñu ko war a gën a jox bi ma koy joxe misaal ci yéen laa joxe misaal kon loolu xam. li ngeen yittewoo dëkk bi ak li ngeen ko joxee giddeem ak li leen ci war ngeen di ko ci def ak di gàttandu fi jamono toll loolu lépp gis nañ ko jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér-gi-yaram di docteur Marie Khemesse ngoom ñëw na moom it ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ngir nemmeeku mboolem wàccaay wi matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllum kër docteur jëm ci paj gi loolee nag ginnaaw bi nga xam ne def na revue des troupes ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa service di d'hygiène ñu wan ko mboolem jumtukaay yi nga xam ne moom lañ euh, waajal ngir màggal gi dem na it nemmeeku hôpital bu yees bi di Cheikhul Khadim ak yeneen i bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ginnaaw bu mu gisee nag ak xalif général des mourides Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadr leeral ko lép loo xam ne moo jëm ci liggéey boobu ginnaaw bu mu teenoo ak taskatu xibaar yi docteur Marie Xemes Ngom indi na ci leeral ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci màggal Touba waa gis nga ne ñu ngi tey ah, ci Touba. bi nga xamante ne ci suba wër nañ commencé si service d'hygiène commencé si moom pour gën a wax nit ñi ne lépp loo xamante ne teg nañ ko ci wàllu faj bu fekkee amul lu ñuy wax fagaru du mën a continuer wax naa plusieurs fois même bu nekkul tey bi ñu paree loolu yëpp ñëw nañu ziar suñu papa suñu xalifa parce que moom itam koo xamante ne santé priorité la si moom donc bu ñu ñëwee ziar nañ ko dooli nañu ñaan parce que toujours mu ngi ñuy ñaanal. ñëw nañ ci porte parole bi bi nga xam ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre itam gis ngeen li ma leen wax ne moom lay def ci santé ñun daal am nañu yaakaar ànd ak administration territoriale nga xamante ne monsieur le gouverneur moo ko yore mais yoru ko rek pour santé mais parce que tey jii ku nekk xam ne ne santé du ñun rek ñuy faj ñoo ko yore dañu nekk ci li nga xam ne dañ koy wax multisectorialité dañuy wax une seule santé am nañ ci yaakaar loolu ci infrastructure am nañ ci yaakaar loolu ci personnel am nañ ci yaakaar également ci environnement de travail li ñuy ñaan rek mooy ñu gën a dal te yéen tamit waa presse bi yaakaar naa ñun ak yéen ñoo mës si ànd ñooy continuer di ànd li ma bëgg toujours mooy rek ngeen wax sénégalais yi xam naa yeneen koor yi nañ ma mere ñuy ñëw di def santé parce que actuellement gis nga li ñu def ci radiothérapie en terme de matériel fu nekk xam ne ne Sénégal am na ay sommité yoo xam ne dañ ciy def ay formation donc ñuy ñaan suñuy doom suñu ay sëtaat ñëw vraiment pour mën a jëw relève bi parce que yaakaar naa ne li ñu desee itam bëri na mu nekkoon kàddu docteur Marie Khemesse ngoom di jëwriñ ji xam ne moom lañ dénk wàllum wér yaram ci nemmeeku gi mu doon amal fii ci tubaa geneen kilifa goo xam ne moom it amal na ziaram ak nemmeekom fii ci Touba moom moo di Aïda Mbodj nekk responsable politique ginnaaw boo xam ne uh, amal nay ziar ci kilifa yu bëree bëri ci uh, dëkk bi moom nag ñëwaat na ci ni mu gën a yaatoo ci ni nga xam ne noonu la état bi war a gën mën a taxawee dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ci mbooleem jumtukaay wala infrastructure yoo xam ne dëkk bi da koy yittewoo ngir taxawu mbooleen ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi rawatina ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jamono yi màggal ñu teewlu kàddu yi Aïda Mbodj ba ci sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul sëñ Muntaxa Bachir Sëriñ tuuba yàlla dogal itam ñu gis tam sëñ Moustapha mu sëñ Cheikh Matiley sëñ Bassirou comme ni mu ko waxee léegi yàlla def ñu booleeg moom kóllëre muy porte parole murit euh, yi nga xam ne Euh, yoon wi daf koy sago di porte parole xalif général di porte parole ñun ñëpp ñu di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko moom la ñu mujjee ñëw ziar nii li nga xam ne moom lañ daan def ak ñoom ci barkeelu yàlla may ñu defal ñu sutura ba ñu mën ko defar ren ñuy ñaan yàlla yal nañu ko yàlla saxalal ñu koy gën a mën di ko séq ak ñoom ñoom itam yàlla bàyyi leen ci sunu kanam ah, difficulté yi nga xam ne nag moom lañu doon xalaat ci màggal gi muy taw bi ak ndox mi gis nañ ni Touba jaar fi jafe na waaye ñu ngi ñaan yàlla di interpeller autorité yi pour que ñu taxaw ci Touba ndax balay màggal gi di ñëw doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw ak ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu fi màkkaan ñu dëkk ci Touba ñu mën a màggal ci niñ ko bëggee mën a joxe suñu farata ji nga xam ne moom la ñu sëñ Touba sant santale ko boroomam ba bisu màggal gi du ñu am benn gàllankoor parce que déjà circulation bi mu ngi am problème ñun ñu ngi jógee sànq gi mbind mais circulation bi am na problème mais bu doon suñu sago ñu taxawu ci euh, pompe ndox mi mu génn euh, taxawu rempler itam yenn bas-fonds yi ba nga xam ni dëkk bi liñ ci war a taxaw yëpp dinañ ko ci taxaw ñu ngi interpeller dëgg-dëgg les autorités étatiques ñu taxaw ni ñu war a taxawee xam nga dafa lii ma tudd yëpp mu nekk assainissement nekk li nga xam ne euh, exécution wu ay mission wu état la yaakaar naa ne état bi loolu dañ koy ci interpeller di ko soññ su ko deful nag dañ koy dénoncer taalibe lañu waaye nag ay citoyen lañu yoo xam ne dañoo xam vraiment une répartition équitable euh, des tâches ak des ressource te ku nekk xam na ne Touba dëkk boo xam ne benn bis mën naa dajale cinq millions mu nekk loo xam ne bariwul am ci Sénégal kooku jaroon na mu attirer attention wu autorité yi ba ñu ci war a taxaw ñu taxaw ko ci alors ñoom ñoo yore alalu réew mi ñoom ñoo yore budget ñoom ñoo yore exécution bi ñoom ñoo yore dooley état nañu taxawu dëkk bi suñ ko taxawul nag ñun dañu am pour dénoncer leen Touba ca kanam batiment bi nga xam ne moom la ñu sasoo woon ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim di université bi nga xam ne seriñ bi euh, moom lay liggéey ci dëkk bu sell bi tubaa liggéey bi àgg na ba jébbal ko euh, caabi liggéey boobu nag nekk batiment boo xam ne R plus 3 la ñu def ci ci koppar lu toll ci juróomi téeméeri million ak ñaar fukk ak benn équipe ko def ci lépp loo xam ne ay jumtukaay la loole nag sëriñ bi sant na leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ju kawe ji nga xam ne ñoom waa Touba kanam defati nañ ko ginnaaw bi nag Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre ci bi nga xam ne ci lañ doon euh, jébale wala dalloo bâtiment boobu moom la fa Cheikh Maodul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou yabaloon mu àndoon kook mbooleem kilifay Touba ca kanam yi ginnaaw bi nag ki xam ne moom moo di euh, Daouda Wilane di kenn ci ingénieur yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci na lépp loo xam ne moo jëm ci bâtiment bi ñu ànd teewlu ko. bi ñu nekk nag muy bâtiment bi nekk suñu ginnaaw mooy bâtiment bi nga xam ne Touba ci kanam da ko jëloon jaayante ko Euh, def réalisation bi ci wàllu technique bi bâtiment bi euh, bokk na si batiment yi nga xam ne moom la ñuy wax majalis muy batiment boo xam ne R plus 3 la rez-de-chaussée plus 3 niveau euh, ba niveau bu nekk am na salle de classe ñetti salle de classe am benn bureau am ay toilettes ak am dégagement boo xam ne mooy tax circulation bi horizontale Euh, circulation verticale bi aussi am na euh, cage d'escalier boo xam ne dafa àndaale ak box euh, cage d'ascenseur te boo ko boolee lépp ci surface utile bi mu ngi toll ci deux mille deux cent cinquante mètres carrés répartis sur comme ni ma ko waxee sur quatre niveaux bi ñu koy tàmbali tamit dañoo ñëw fekk lépp lu nga xamante ni moom mooy tënk projet infrastructure rawatina bâtiment mi nga xam ne mi ngi tàmbali ci phase de conception bi nga xam ne architecte moo koy def Euh, étude technique yi nga xam ne mi ngi commencé ci gros œuvre bi bureau d' étude moo koy def def euh, plan béton armé yi def étude géotechnique bi loolu yëpp dañoo fekk mu am euh, étude yoo xamante ni unité de coordination projet bi bi nga xam ne sëñ Mame Thierno moo ko sëñ Mame Thierno Mbacke mu sëñ Souhaibou Souré moo ko jiite ñoom defoon nañ ko léegi nag Touba Ca Kanam ba mu ñëwee laaj liggéey bi dañoo dajaloo ñu jox ñu plan yooyu ñu saytu plan yi daal di tàmbali liggéey bi léegi nag ñoom si seen supervision la nekk ñu xaatim ak ñoom benn convention boo xam ne mooy wane ne lépp loo xamante ni ñoom définir nañ ko comme norme bu ñu war respecté ci université bi danañ ko respecté noonu lañ doxalee tàmbali ko recruter benn entreprise jël benn ingénieur teg ko fi muy saytu entreprise boobu mu nekk ñaari niveau de contrôle benn bi mooy contrôle interne bu ñu bu ñu entreprise bi defarlee ba pare ñu contrôler suñu bopp ba pare nag doo di woo bureau de contrôle bi nga xam ne moom mooy valider pour ñu mën a jàll ci beneen phase bu euh, euh, di continuer di kon ba gros œuvre bi jeex gros œuvre bi mooy jëmmi bâtiment bi nga xam ne euh, ciment la béton ak fer ba mu lépp daj ñu doog a tàmbali nag yeneen corps d'état yi mooy carrelage électricité plomberie ak yëpp loo xamante ni bâtiment da koy laaj ba ci euh, euh, électricité bi am courant fort courant faible ba ci caméra de surveillance ak yëpp donc Touba Ca Kanam li muy livré li muy livré bâtiment bu complet la boo xam ne yemul sax ci jëmmi bâtiment bi kese mais da koo équipé à 100 pour cent li ñuy wax clé en dëgg dëgg dëgg Kanam def na ko romb na sax clé en main ndax clé en jëmmu infrastructure bi kese ngay joxe mais romb na euh, clé en que après équipé waat na ko bureau yi li fa war a nekk lépp te xam naa ne dana gunge aussi ci ci ci ci niñ koy kiiyee gis nañ ko ba fii ni mu meloon yaa quelques jours bi ñu ñëwee war a def inauguration bi gis ngeen niñ ko setalee nga xam ne daanaka def nañ aménagement bi donc liggéey bu mucc ayib la boo xam ne tegu na ci norme yi mu war a tegu te tamit Touba ca xam naa lii daf ciy wane rek ne liggéey infrastructure amul bu ko të ndax ñi ci nekk nga xam ne ñoom ñooy jiite réalisation am nañ expérience bi am nañ rigueur bi waaye tamit seen ginnaaw tamit am na collège d'ingénieur boo xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw coût réalisation bi aussi euh, euh, cinq cent vingt et un la 521 millions la te loolu tamit xëj na bu euh, buñ ci buñ ci def ak tamit niñ ko saytoo moom moo tax waaye bañ koy démarrer ku ne xamoon na ne ñu ngi ko estimé woon ci ay 800 millions waaye nag lépp loo xamante nii euh, luñ lu ñu waroon a jëggaani feneen la dañ ko jaay dañ ko jaayante suñu biir ndax bëri na ñoo xam ne tey bu ñu leen doon fay ñi ñuy nekk si wàllu réalisation di leen fay salaire di leen di leen euh, jox leen yenn conditions yi ñu nekkee yëpp kon mën na am sax na romb loolu waaye nag jaayante moo ci feeñ donc écart boobu am mooy wane ne rek loolu noonu renoncement bu am la si ñi nga xam ne ñoo ko doon ñoo ko doon taxaw ndax kenn ku ci nekk ku ne xam na ne structure bu mel nii boo ko naree taxawal li muy laaj ci ay conditions ak ni ngay nekkee mais ñoom dañoo jaay seen guddi seen bëccëg ak seen lépp donc def ko ci donc loolu daal mooy si succès bi disposition yi ci war a jël jël nañ ko ci waaye nag comme dafay bâtiment boo xam ne dafa nekk si benn comme li wax benn entité la si biir corps boo xam ne euh, Euh, euh, bâtiment bi jëm bâtiment bi boobu lépp loo xamante ni prévoir nañ ko ci wàllu plan nga xam te loolu unité de gestion de projet bi ñoo ko defoon loolu moom Touba Kanam respecté na ko léegi nag tey bis ni ko tey jébbal nañ keg caabi yi suba comme liggéey sëñ bi ni muy mos si doxee boo xasee jébbale rek li ci des nag moom ñoom ñoo ko yor te ku ne gis na sëñ Amadou Bardé bi ni mu ko waxee ñoom xam nañ usage benn lañ ciy def ñu toll Touba Ca Kanam définir tul salle de classe kan jàngee loolu seen liggéey la ñoom léegi li nga xam ne moo jëm ci wàllu sécurité nag bu dee sécurité interne bu bâtiment bi jël nañ ko kuréel gi nga xam ne moom lañ euh, dëppee 18 safar nekkee ca réewum France ñoo am projet bu mag boo xamante ni benn complexe la buñ bëgg a euh, liggéey ca Paris ngir euh, yombalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi mbooleem événement yi nga xam ne moom la ñuy ca moom le réew mu gën leen a yomb ndax jamono ji ay jafe-jafe lañ ciy am ci luy ay salle ak lu ñu demee ñi nga xam ne nag ñoo yor projet boobu ñëw nañ ci Touba Mbacké wan ko ki nga xam ne moom moo di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou sàkku ci moom ndigal ngir mën a liggéey boobule complexe ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Khadim Samb kenn la ci jëwriñ yi nga xam ne ñëwoon na ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne leer na ko Serigne Mountakha ki moom Serigne Bassirou ba léegi danoo boole mhm. boole mu daayira yi nekk Paris ñu doon benn say di màggalandoo di gàmmandoo di boole addi gi ñu jëbal nga xam te dañ boole fédération nationale bi nga xam te ne at ci wees bi may ànd ak mag ñi di ci jëbal si mhm. waaye nag euh, dañu am liggéey am fa complexe xaadim rasul ca Paris te danoo gis ni sëñ Tuubaa yeyoo na ko bu baax a baax a baax ini yuqaatu bi nasara qura sëñ bi ñëpp xam na lam lam ci jublu woon lañ ca bëgg nag mooy sàkku ci ngërëm sàkku ci ndigal ak ñaan ndax Paris euh, jafe-jafe yu ñu am ci wàllum saal lépp lu événement murit muy màggal gàmm ak bu a doon jafe-jafe yi am mooy naar yi ñoo ko yor ak tubaab bi te dañ lay tënk-tënk doo xamante ni doo mën a dañ lay réserver saal doo ci mën a jot dat ya lay jox du baax te ñaari kër suñu tubaab ya fa nekk bii di taverne man fa laa féete on gayit kër yi leen yëpp ay ay ay mag ay mag lañ lu fa xew rek. dañuy dañuy am jafe-jafe. ci ci ci yaatal daal. waaw ma ko bëgg a waaw jafe-jafe am nag mooy mooy voisinage yeeg lu xew rek dañuy dañuy woo police nit ñi ñuy déranger yooyu ñu am nag complexe bu mag xam te ne danañ fa am jàngu am fa juma am fa am fa am fa euh, jàngalukaay am fa bibliothèque Xaadimu Rasuul xam te dana am xas dee ak alxuraan am ak xale yi di jànge waaw loolu lépp bind nañ ko def nañ def nañ ko def nañ ko ci biir waaw bi moom moo nekk ci téere moom lañ moom lañ bind ci ci téere bi waaw alhamdulilah waaw waaw alhamdulilah waaw alhamdulilah macha allah alhamdulilah wallaay xam nañ bu baax loolu bàkkee jageen mbokk yi bàyyi xel Assalaamy TV lii la ñu indoon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci wàccaayu màggal gi 18 safar 1444 ginnaaw gàddaay gi war a doon jeudi 15 septembre 2022 sant leen bu baax a baax gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje incha allah yeneen xibaar yu bàyyi ko fii ci Touba lépp ñeel wàccaay màggal gi jërë ngeen jëf كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin an nafar raditu an al mawla wa an xayri xalqihi